alhamdulillahi alqaa'ili fi muhkami tanzilihi min almuminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badaloo tabdilan liyajzi allahu sadiqina bi sidqihim wasalaatu wasalaamu ala man bu'itha mualliman sayyidina muhammadin safati badni adnan wa ala alihi ahli lihsaan wa radiyallahu an baqiyati salaf wa xudwati lxalaf faxri diini walwatan mawlaana al abdilxadim ahmad bni muhammad bni habibillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk julli kilifa gu tedd gi di Sëriñ cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ñu yëkkati kàddu di ko ubbil rek ndax seen digg moom li ma ko doy doy doyuma ko ci seen seen diggante ndax xam ngeen ne ba ngeen dalee ba nëgg ni lépp moo ko ànd ak yéen kon li sëriñ bi di wax wa fil bi min ridwani fi ma ukinnuhu daninan bihi inna sudura quburu loolu mooy li ko daj seen digg yéen li yéene bëgg ko wax kenn doyu ko ci bu ñëpp maasoon ci di ko ko waxalit kàddum rek moo ko mën a mottali kon dañ ko ubbi rek jotaay bi nag néew lañ ci wax ndax day jataayu ndam di jataayu ndamu Sëriñ Tuubaa di jataayu ndamu sëriñ bi di wane it li Sëriñ Tuubaa waxoon ne ma yoon sii nii bi yow mi yow sama tey ju ne gàcceel na sama démb kon loolu na ne fàng ba jërut woon ko amati bët na ko suñu kilifa gu baax Cheikh bi Ahad Mbacké waxoon kon ci ndigalu sëriñ bi ñuy ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak ndax ñaan gi dafa bari lu ko waral ndax taxawaayam dafa matale sëkk ni ko sëriñ su waxe léegi ndax bi mu fi nekkee kilifaam jiitu na sax njabootu Serigne Touba gi waaye ba mu fi nekkee kilifaam nga Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbakkeem Cheikh Mouhamadou Bassir dégg naa ci kàddoom mu wax ne dama ko wax ne ko saa soo ma séenee may ñëw rek xamal ne lem naa sama xel denc ba kër moo fi jóge mas amu bëgg mas amu bañ noonee la ànd ak moom ba làq ngërëmam làq ngërëm kilifaam yëpp mboolem njabootu Serigne Touba gi kenn ku ci ne ñim jamonoon teel ku ci ne seq na ak yow loo xam ne loolu doy na sëkk firnde ci loo xam ne ab joxañ la woon joxañ ba taxawaayu tey bii wane na ne kenn ñoom seenu gis dafa neexoon lañ gisoon mooy fi mu toll tey dégg naa ci kàddu mu wax ne am na ko ko mos a seer kàddu cant ci Cheikh Mouhamadou Bachir ba mu waxee ba jeexal sëriñ bu de ko ne rekk de lii mu wax bu fekkee mi ngi ci yow na nga fexe ba sax ca bu nekkul ci yow tam na nga fexe ba mu nekk ci yow loolu nag yàlla def na ko ci moom kon day ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ndax njabootu sëriñ Tuubaa gi loo woon nañ ko doy loo goo xam ne kenn xamul fu mu yem Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bañ ko daa doxloo ak di ko ko yónni te booba xam ngeen ne ñi ko jiitu ci yoon yu bari na waaye pëstéef ma ak dogo moo ko may Cheikh Abdoul Khadir gane jëna ko ba tàyyi bu ma saan siyaar yaar si Sëñ ci ngan yi mu daa def moom sax boo ak seen moom lañ njëkk laaj ngir jëli ko kon loolu seen diggam moom a tax diggam ak Sëriñ Saaliw nag àdduna sépp xam nañ ko ndax Sëriñ Saaliw seddoon na ko ci ci moom cër boo xam ne kenn xamul fu mu yomb ndax lu ko mas ñor wala lu ko mas a itteel moom la ci jiital biñ demee ba nga xam ne dem na ba Cheikh Mouhamadou Mourtada bàyyi ko fii itam mu xamal ko ne sa jëmbu jëma ci doy kon ñoom la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ci suñ bàkk Madina rek ci jëmmam ji lañ koy xoolaat suñ bàkk Madina dafa Cheikh Abdoul Ahad dafa waxoon ne Serigne de sëddi képp ku ci jub te tegu coow mu dugale ci suñ biir daanaka suñ bàkk Madina mu luñ ko ëppale waaye moom mii nag àgg na ci xaal boobu tey amul dara loo xam ne ñi ngi ko daa xalaat ci doomu Serigne Touba ci positif ak yaakaar te buñ xoolee jëmm ji duñ ko gis ci moom dégg mag Serigne Souhaïbou ñëpp xam nañ ko ba ñu ci biir daara ja daana fa ñëw xam nañ seen diggante àdduna sépp xam nañ ko soxna May ñëpp xam nañ ne layatul xadri gii moom la defa jëwriñ ji ak mbiram yëpp kon moom ngërëm di dafa yàgg te muy loo xam ne dafa dëgg ci moom yàlla binde ko ni dund lu lu sëñ Tuubaa bëgg lu lu sëñ Tuubaa tallu lu sëñ Tuubaa damay wax ne Cheikh Mouhamadou Mountakha ku ko xam ku ne xam cër ba mu àgg xam fa mu àgg am mënuñu wax mënuñ koo xam nag waaye ku ko xam ku ne danga xam ne itam génnut ibaadaat yi jaamu yàlla yi ñuy def li mu toggoo ci njàngum alxuraan ak xasida li mu toggoo ci ibaadaat yi waaye yàqalu ko ak jëflanteem digg ak nit ñi daanaka day mel ne bis bi dara warut ci dara warutoon xaj ci ni mu waaye lépp yéene pëstéef ak bëgg sagal Sëriñ rek mooy tax loolu mu du ko def kon nag yàlla na ko fi yàlla bàyyi loolu mu yàgg te ànd ko wér doon na sëkk taxawu ñaari doomu Sëriñ Tuubaa loolu moo ko njëkk am ci setu Sëriñ Tuubaa kon tawfeex la ñu ko Sëriñ Tuubaa defal ginnaaw bi fi njabootu Sëriñ Tuubaa jeexee ci kaw suuf Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw ku ne xam na fa mu toll ci at cër bi ko yoon wu jox cër bi ko àdduna sépp jox waaye ba nëgë ni gisaatuguñ ku mel ne moom mu jug taxaw laxasaayu boole ko juróom-ñaar fukki million ak ak lu tegal def ko addi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ngir Sëñ Tuubaa loolu itam ba mu koy wax dafa dajale njabootu Sëñ Tuubaa gépp waxoon ne lam la ma ci gën a jund mënoon naa koo jëf te kenn ko waaye dama leen di jàngal aw yoon ñëpp xam ne moo ware noonu la ware ñëpp loolee nag dund na ko moom digg mag Cheikh Sidi Moussa noonu la ànde ñoom mës amul bëgg mës amul bañ kenn mësumaa yónni ci moom ma dem xam xalaatam ba ni mu doon Sëriñ Tuubaa kon moom jataay bi tey bu fekkoon sax lu ñuy jaay la dama damaa wax ne da jënd Sëriñ Tuubaa nag lu waay am dala ko dala ko gën a baaxee la ko waaye bu doon bu doonoon lu ñuy jaay dama ne da jënd te sëñ Abdou Lahad waxoon na ne yoon wi yii rekk fi ne liñ la dénk ak liñ la may ak liñ la jaay nee na liñ la dénk waxtu wa neexee borom mu jëlaat ko li liñ la may mu neexee ka la ko mayoon mu jëlaat ko li nga jënd nag ka la ko jaayoon taneetulu ci taneetulu ci njëgg kon sëriñ bi lii mu am ci lislaam ji waxuma yoonu murit waaye am ko ci biir yoonu murit ndax moom day wax ne fi ma nekk ci sëriñ Tuubaa ak ni muy doxee ci sëriñ Tuubaa mboolem ñi bokkal sëriñ Tuubaa ni ma ko yéenee sama bopp naa laa ko yéenee waaye suñ borom delloo na ko ko nag ndax njabootu sëriñ Tuubaa gépp maase nañ ci yéene ko jataay bi yéene ko mu yàgg lu mu fi gën a yàgg rek nañ ko ngir xam li muy jëriñ ci yoon bi ndax la ci la ci gën a tuuti mooy foo gisee jëmmam rek saxee dellu ci yàlla foo gisee jëmmam saxee dem ci Tuubaa loolu doon na ko sëkkub liggéey leneen li ci des lépp mën nañ ko muñ waaye loolu li nga mooy li xam ne kenn mënu koo ñàkk danaa ci tànn jenn seen seere ndax njëbaru suñ Tuubaa koo ci wétan seere sa seere sami seere ci sëriñ bi am na ci loo xam ne mënees koo yëkkati ci rajo di ko wax ndax loolu boo ko waxee sax day nuru dara waaye Serigne Cheikh Mbackeem Serigne Saliou wax na ne wa ma aslama jibrilul aminu ata bi isni man huwa fawqal kulli qaharu mualliman anna islaamal fata umarin busra li ahli sama mooy xelaaf ak Cheikh Mahmoud Moustapha Cheikh Mahmoud Moustapha te moom suñu Cheikh kon xam na fi mu toll ak ko yàlla bindee du wax lu mu gëmut kon loolu doon na sëkk seera te njabootu Serigne Touba gépp gi ko seqal ñëpp foofu lañ maase ne ci moom kon yàlla na fi yàgg te ànd li ci dolli ko rek mooy bisum ndam la ndax aaya bi ma tari euh, sëriñ aatu Diagne day jàmbaar lool àndoon na sëriñ bi sëriñ bi xam pasif ma xamul dogom moo tax ma tari minal mu'minina rijaalun sadaqu ma ahadullah alayhi waaye lool itam day wane ne mbir mu Serigne Touba kenn doonu ci dara lépp moo ko yoral boppam ndax ko xalaatoon ne moom moom moom di suñu aatu mën na fee jóge mootul weer yii ngeen jëfaat fi jëf jigéen fi jëf te dara taxawul lépp di gën a yokk lépp di gën a dox day wane ne kon jàmbaar amul ñëpp suñu tubaab dimbale sëñ bu xaar ko wax jàmbaar amul kun dimbale am waaye kon yéen da ngeen am dimbalu suñu tubaab sëriñ bi rek liñ leen daa seer dadaa wax ne dadaa wax ne képp koo xam ne mi ngi xalaat ci yéen dara daa jàpp ne Sëñ dara jomb ko te Sëñ Tuubaa dara jomb ko kon yéen wanewaat ngeen it ndamul Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa dafa waxoon ne tubaab bi de damay njëkkante ñoom koo xam ne njëkk nañ ma ci moom ñàkk naa ko bu faw waaye koo xam ne njëkk naa leen ci moom ñàkk nañ ko bu faw yéen ñii nag xam ngeen ne Sëriñ Tuubaa bi bi ñu ko yóbbu njaareem raamoo ma siri ilaa jumbe la daa lasasi law aayenoo sirra maa fi sayri maaraamoo ñëpp xam nañ ne la toxoon tubaab yi indi ko fi ci seeni natt mooy jàppoon ne fii ak njariñ toll ci ay taax bu ñu ko fa indee ña sëñ Tuubaa xasoon defar kenn moo tuddee na soppi waaye ñii judduwaat ginnaaw bi ñëpp cinéma yi ak marché yi ak mbooloo mi daal leen fab bi yéen ñii nag yenn weddil sëñ Tuubaa tuumam wane ngeen ne sëñ Tuubaa lépp lu mu bëgg def ci nit te dara mënta dox digg diggam ak loolu da ngeen layal ngeen sëñ Tuubaa wa wane ngeen ndamul sëñ Tuubaa kon nag na sant yàlla bu baax te xam ne nii ngeen di doxee itam sëñ Tuubaa leen ko digaloon sëñ Yuusu nag yow da nga am tawféex ndax tawféex bi mooy daayira bi daa doxoon ñu ànd ci seen biir di tànn njiit ba ak si suñu aatu mu def ci jéegu rëy rëy ci taxawaay bu mat sëkk boo xam ne dund naa ko mu xam ko. yow nag da nga am tawfeex ndax yow suñ bee da tànnal boppam te ba mu dee tànnal boppam itam diisoo ci laaju laaju ji waxtaanu ci daa noppare yëkkati boppam kàddu wax ne fu ma gisee aato sama xel dem ci yuusu fu ma gisee yuudu sama sama xel dem ci aato kon sëñ bi xamoon na dayra bi dara luy soppi ko mu ci loolu nag wane waan nga ko tey jii ndax bi ngeen mujjee siyaare ñaar téeméeri million ngeen amoon tey siyaare bii bi ngeen koy def bi nga koy wax Serigne Moussa. di ko ca laaj loo sëñ bi ndigal boo li des ci koor gi mootu fukki fan juróom sëriñ bi tànnal la bis diggante mootu fukki fan juróom ngeen dajale ci ñetti téeméeri million yu tegal li mu jëy te xam ngeen jëy li muy tegtale ci mbirum Sëriñ Tuubaa kon yéen am ngeen tawféex bu noppi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nag moo leen taxawaloon tegoon leen ci yoon waxoon leen ni leen fu suriñ Tuubaa xëy na ngeen fa gonte fu mu gonte na ngeen fa xëy loolu nag wàccu leen ko waxoon waxoon na leen ne leen itam yéen ngi jëm ci dëkk boo xam ne yéen a ko dëgg ma sax dara mun leen te fa àgg te bu ngeen fa àggee képp ku ko ànduloo daan leen ci ñee loolu yàlla defal nee na ko tey ndax mel na ne ñi ëpp ci nit ñi gindi ko nañ ci yéen ba ca des it waxoon waxoon na leen ni leen lépp lu ngeen dajeeti ci seen biir te kenn raxu leen na ngeen xam ne wax yu bu jógee ci la loolu doon na sëg kon nag sant leen yàlla bu baax te xam ne Sëñ Tuubaa liggéeyal ko képp ku mu defal tawféex ba nga dëddu àdduna bàyyi lépp di ko liggéeyal na nga xam ne am nga defaru àdduna ak alaaxira ndax moo ñaanoo suñ boom ne ko wax di xawaay jël si na daamu fii xidmati wahab lahum maaraamu ma nett li ci rek lu gàtt ndax dafa nekk ca njaareem ca ca ca gànnaar ca déwén sali sëriñ bi ñibbisi ne nañ ma wool fere yépp ñu daje ñu wool ko fere yëpp ñu daje mu wax suñu alliou seen ak alliou wool ma fere yi ñu woo ñëpp ñu daje sëriñ bi ne ne alliou yi limal ma ci yéen yi am Sénégal loolu solution bi moo ko daan nettali suñu alliou seen di gum lim rek sëriñ bi ne ko du googa ba jeexal mu ne ko xam ngeen lu mu ci jubloo mooy damaa bëgg ngeen xam ne lépp loo xam ne digg naa leen ko fii tey ni ngeen di gisee lii ma leen di bëgg di ngeen ko gisee daana suñ boroom xamal na ma ne balaa négé ni si déwén danañu fekkee Sénégal ci ak ci yéen li ma ci jub nag mooy bëgg ngeen xam ne lépp lu ma leen dig ci àdduna rek bu ëllëgee deen ko gis fii ma leen ko waxee nag ba kenn ba keroog ngeen fi jógee kenn du faatu ci kàttanu yàlla fekk am na ci menn magum taalibe mu doon xaaru ñëpp jàpp ne day faatu waaye dafa wéraat ba sëriñ bi ñu bisu eh, senegal ci ci yéen Jolof mu door a faatu kon loolu mooy mbiru Sëñ Tuubaa lii ngeen fi indi muy addiyee nag rëy na lool waaye Sëñ Tuubaa dara rëy ci moom ndax nekk na ca gànnaar am kenn ci bokki taalibe yi ci ci kilifa yu mag yi wax ne dafa bëgg dajale addiyee dafa bëgg dajale Sëñ Tuubaa addiyee ju ko kenn mësa yox daal di mbay mbay mu yaatu dajale ay taalibeem dajale lam amoon lépp jaay ko mu nekk juróom-ñetti junni mu ànd ak mbooloom ñoo fekk ci bi ci ci ci gànnaar bi mu agsee nuyoo sëñ bi laa ko doon si tànk mu ko dama laa siyaare si woon bëggoon laa jox addiya addiya ji nag mu ngi toll ci juróom-ñetti junni sëriñ bi nag cal waxu ko dara dugg ci biir na suutu mu ginnaat daal ne ana ana ndawi Ahmadu Ndumbe mooy sëñ Mandumbe fekk sëñ Mandumbe yónnee na fa ndaw ba ndaw la agsee sëñ bi ne ko ana doon say tànk mu ne ko sëñ man Ahmadu Ndumbe moo yónni mu ne ko lu mu doon yónni mu ne ko addiya mu ne ko lu mu sol mu ne ko xawma ko ka woon loola sëñ ne ko àndal ak moom ci biir kees ya ñenn wàññi ko ba ñaata la bañ demee wàññi ko muy ñaar fukki kon sëñ tontu na ko kon nañ xam ne sëñ Tuubaa ko waaye di defal rek yéeg moo la ko defal lañ ko mën a fayee ndax am na koo xam ne gàmm dafa jot sëñ Tuubaa wax ne kooku wax ne damaa bëgg a teral gani gani Sëñ Tuubaa delloo ko ko njukkal ca njaareem rey ay nag yu baree bari ak i xar ak lam man lépp séddale pension ba mu fees lépp mu jëf ko ay ñam ba gàmmu gi jeexee mu ñëw ci sëriñ bi leeroo ko li mu jëf sëñ na ko ana loo ci jubloonu mu ne ko xanaa del delloo la njukkal sëñ bi ko mënu ko kon yàq nga sa jëf ndax la la nga man ba tax nga def ko maa tax nga man ko kon kon kon lay cant gi mooy ngeen yëg maa leen ko defal kon nag foofu lañuy ñuy jeexale di ñaan sëñ bi yàgg fi lool te ànd ak wér te sëñ Tuubaa tàbbal ñu ci lam boo xoo ne add xaltu nafsi wa jamii ahli fi jey bi afdali wara bi fadli wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bala maa jeexal nag sëriñ bi xam ngeen ne bi muy ñëw ànd nag lenn ci ay bokkam ndax mu ni sëliñ ñëpp ndax bu sëñ bi xasee toog yoonu murit baaxawut noonu waaye sëriñ Isaaxa Mbàkkeem Seex Muhamadu Basiir mi ngi toog sëriñ Abdou Samad Mbàkkeem sëriñ Soxay mi ngi toog sëriñ Moustapha Abdoul Akram mi ngi toog ak yenn mboolem cheikh yi sëriñ Tuubaa ak lenn ci bokk yi ñu bari ñu ngi fi ñu ngi di sant ñépp di ñaanal waa daayira bu salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.